mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Journal. Résultats résultat examen virologique yi ma si téeméer ak juróom fuk ben test fuk ak que positif muy nyenti cas importé ak juróoma ñetti cas yoo xamante ne kaa contact la ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom-ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan ci bësu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fils Sénégal ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo si wër bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk si hôpital ñu ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid 19 Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 28 du jour. Ce dimanche. 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie.